asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yu chaîne football TV nuyu naa leen bu baax ziar leen di am mbégte saa ne defal leen vidéo digga bor la nag man maa leen wax ne dama leen di andi liste probable liste bi ma jàpp ne Aliou Cissé moom lay convoqué pour suñu ñaari jongante ñu war a am ak Mozambique beneen ñu joué ko fii Sénégal stade Maître Abdoulaye Wade Diamniadio beneen ñu war ko joué normalement Mozambique mais waa Mozambique seen stade kenn homologué ko ñoo ngi ñuy xamal ne sax ku métti ñu joué ko fële ca Afrique du Sud donc ñu bëri ñu may laaj liste bi mbokk liste bi fédération waxagu ci.

ko wax sa yeneen xarit ont ñëw jëndaat ay blouson xam nga donc ñu ay GP ñu jot donc sant yàlla la loolu euh, remercier fii ci mi franchement du xam donc sonal nañ ma sonal nañ ma may ñu tout le temps ak ki connect euh, contact sur WhatsApp ñëwal ñu liggéey ñëwal ñu partenariat alors que moi, je préfère même jaay maaya parce que mooy dooleel seen football TV moo ñuy permettre ñuy def lu bëri donc merci ñi nga xamante ñoo ngi ñëw di jënd ay blouson parce que mënoon ngeen jënd feneen ah mën ngeen jënd feneen maillot mais xam naa les geste bi da ngeen def juste pour dooleel seen football TV donc merci awma seen fay mbokk internet yi liste probable liste bi ma jàpp ne Aliou Cissé moom lay convoqué man 25 jours là, andi donc euh, xam naa les moom def liste probable voilà maintenant euh, trois gardiens de but euh, premier gardien c'est Seyni Timothy gardien Reading euh, Alfred Gomis est donc euh, série BLN, la commun donc Admouridio, Claire Clermont Foot donc trois gardiens il a, gis ne ñoom la ñuy euh, Edouard Mendy si gaañu qui est jógee pour man bu wéré sax est Cissé war ko convoquer te ñi la japp né Aliou Cissé ñoom lay convoquer ñu avancer ci défense bi défense bi Kalidou Koulibaly Formose Mendy donc euh, Ismaila Jacobs euh, Moussa Ndiaye maanaam Moussa Ndiaye latéral gauche euh, donc Sabali Bouna Sarr Ousseynou Ba Ousseynou Ba nag laa nekk di hésité entre Ousseynou Ba ak Mamadou mbay pour man Aliou foofu dina xaw a hésité pour man boo xamee tuuti Aliou Cissé rek naan Mamadou Mbaye lay woo quoi. donc Mamadou Ben bi nek fële ne le euh, bi nek Cadiz nek di def saison bu baax a baax am 24 ans nek un très beau défenseur vu que nak li tax ma defal len défenseur yi parce que suñu défenseur yëpp blessé donc euh, voilà c'est Abdou Diallo neew fi Pa Abou Cissé fi donc euh, ni la man defal na len nag ben vidéo bu xamantene défenseur yi rek la def dama len andil défenseur yu bari yu xamantene war ñu mën ñew espérer ñew équipe nationale du Sénégal donc man défense bi wax na len que Abdoulaye Seck day ñew Abdoulaye Seck euh, Abdoulaye Seck mooy ñëw Ousseynou Ba pour man ñoom ñooy ñëw kenn ne remplace pas Abou Cissé kenn ki remplace Abdou Diallo à voir entre Ousseynou Ba pour man ak Mamadou Mbaye Aliou Cissé boo ko tout, da nga naan yenn championnat yi moo ko gënal te kii moo Liga espagnole kii moo championnat Grèce donc boo xamee Aliou Cissé tuuti da nga naan ah est-ce que oo kii dit euh, Mamadou Mbaye bi nekk Cadiz au lieu de qui nekk Grèce mais quand même euh, na woo Ousseynou Ba peut-être man peut-être avantage bobu la am quoi Ousseynou Ba même si Aliou Cissé n'est pas aussi fan que euh, que ça de Ba quoi donc lii laa comme défense bi leneen lu ma si a wax peut dama naan Bouna Sarr day def retouram xam donc euh, parce que normalement ñu bari ñu mëna naan Noa euh, mais Noa Fadiga jeul wul Bouna jeul joué wul te Aliou entre Noa Fadiga bu dul ak Bouna Sarr bu jouer je pense que Bouna Sarr lay woowaat quoi donc Bouna Sarr sabali moy dem. côté gauche Ismaël Jakobs Moussa Ndiaye pourquoi Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye moo nekkoon troisième position euh après football Ballo-Touré Fodé si gañu gañu jógee amul temps de jeu Moussa Ndiaye lu mu dee dee dina am temps de jeu feulé fële euh, Anderlecht donc euh, latéral gauche motax tax wax peut être nak Aliou boko xamé ko xamante danaan naa woowaat Fodé touré parce que si banc lay toog quoi ya xaluma dara donc man dal laa gis donc avoir Aliou Cissé lay def Aliou Cissé boo ko xam ne naam Fodé Ballo-Touré lay woo de Aliou Cissé moom ay mu ngi noonu boo demee si milieu terrain bi Pape Matar Sarr Pape Gueye Idrissa Gana Gueye jaata Diatta euh, Mamadou Ndiaye Nampalys Mendy

joué xam donc loolu loolu moo quoi Modou Lo yaa nekk saison bu du côté de Champions League ak Reading donc loolu moo man pour man euh, Aliou Cissé ku mel Moustapha Nam éliminé euh, donc euh, bouba boobaa jël depuis enfin Sénégalais, yi ñu koy réclamer du côté de Reims ñoo ngi nekk di def saison bu extraordinaire ak seen entraîneur bu bees boobu xamante ne donc dafa toog ay match yu bëri amul défaite donc pour man jël depuis il est temps qu'on le convoque Pour remplacer qui dit Moustapha Nam bi xamante ne si Cissé du ko essayé mukk ñu dem si attaque bi. attaque bi euh, Sadio Mané Ismaïla Sarr Iliman Ndiaye euh, Boulaye Dia Mbaye Diagne Keita Balde Pape Ousmane Sakho Pape Ousmane Sakho naa ko def benn vidéo bu spécial donc euh, fii kan moo ñàkk place am kii di Nicolas si dafa am gaañu gaañu Famara Diédhiou dugalul ay but et que mbay Diagne actuellement c'est le meilleur buteur sénégalais actuellement raw na sawaay raw na kii di Habib Habib Diallo Habib sax si liste bi la bokk mais Habib Diallo d'après sama information yu amna yu nga xamante dañ ma soufflé comme quoi du ko convoqué bon loolu mom man dina ma jaaxal trop mu bañ ko convoqué mais loolu la lañ ma xamal quoi man mii loolu lañ ma xamal dañ ma xamal comme quoi Aliou Cissé du ko convoqué mais man bolé naka c'est quand même pour man une liste de 25 jours la Habib Diallo bokk une liste de 25 jours avec Pape Ousmane Sakho Pape Ousmane Sakho pour man mom c'est maintenant ou jamais pour le convoquer quoi man gisuma lan moo ko war a empêcher mu convoquer Pape Ousmane Sakho D'après France, je woo ay euh, sur le côté, sur le côté côté mais après quoi franchement il est temps Maintenant vidéo quoi parce que am n'ai lu d'informations ay information yu pour mon Pape Ousmane Sakho donc c'est ça la liste probable une liste de 25 jours, joueurs de vingt jours il après il ngeen à peu près en tout cas il y a défense euh, gardien yi wax naa leen que milieu bi ak attaque bi ay retour de Sadio Mané ak yooyu noonu donc euh, li la gis comme comme une liste bu xamanteni ne Aliou Cissé mom lay convoqué euh awma leneen peut-être luma ci wax y a des absents. et c'est normal des Kouyaté euh, des Moussa Niakhaté ñee sûrement gars yi dañu may wax nag ay ay business no ñii dinañ la wax Malick Thiaw lan moo tax new si ñii dinañ la wax Boubacar Soumaré lan moo tax ne aussi ñii dinañ la wax Moussa Niakhaté mais boo leen si gis rek am na explication boo leen si gis am na explication c'est à Aliou Cissé nag man de franchement bëgg naa mu bette ma de mu woo Soumaré bëgg naa mu bette ma def surprise woo Malick Thiaw franchement bëgg naa loolu loolu mais dama leen wax à peu près dama xaw a jéem dugg un peu si xelu alusi sene dal li la japp ne ku may moom mom moom moom lay ko waxuma ne moy am mais mom la japp ne mom lay am mom la njortu bok donc wolof mom foog nga leral ko parce que yaakaar naa def li c'est probable mais suñu borom mom may suturaal la plupart ay ñaari jour ñetti toujours la jóom xama donc euh, mais bon cette fois ci c'est compliqué mais forme blessé te dañu jóge si compétition bu xamantene ak lo mënte wax am nga déception quand même ñu dóor le 3 carrément ni xama donc Angleterre écrasé la carrément donc propre ak déception à nonou nous Cissé fokh mu ak dama du Sénégal andi benen souffle bu génération motax benen liste la bu xama un peu compliqué mais euh, sérieusement donc euh, que Mozambique. xam nga donc du ñu Sénégal du seen morom quoi ñu convoqué kii ba ñu convoqué kii Sénégal du seen morom dañ leen war a doo jàll ci leneen donc mbokk yi li mën a ko vidéo bi ci commentaire ma ngeen ma wax seen xalaat ak seen gis-gis dem suñu yeneen plateforme Facebook Twitter Instagram TikTok boo ñu tàppee seen football TV incha allah di nga gis suñu logo bi maa leen di jaajëfal di wax ba beneen sur seen football TV.